fi dajale tey mooy bi ñu installé ba léegi euh, le 27 janvier 2020 euh, installation membre commission bi nga xamante ne ñoom ñoo war a joxe li ñuy woowee carte nationale de presse bi ñu installé ba léegi euh, rencontré woon woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy journalistes ak techniciens de la communication parce que dafa am benn liggéey bu nga xamante ne ci lañ nekkoon tey jag tey nag liggéey boobu yemb na. parce que liggéey nañ ci benn règlement intérieur bi nga xamante ne moo ñuy permettre ñu def suñu liggéey comme ni nga xamante ne loi bi code de la presse moom moo ñu ko sant liggéey nañ ci canevas bu nga xamante ne moom moo ñuy permettre ñu valider expérience ñi nga xamante ne génnewuñ ci forme école de formation bi ci formation yi liggéey nañ ci benn site internet bi nga xamante ne moom mooy yi li ñuy woowee dépôt en ligne Euh, bi ñu paree ci loolu ñu dem fi nga xamante ne moom mooy CDP commission des données personnelles pour que ñu jox ñu autorisation pour que ñu mun collecter données journalistes yi ak technicien communication yi liggéey boobu nag bi mu yembee tey euh, dañ ne pare nañ liggéey bi et que mën nañu commencer ubbi li ñuy woowee dépôt pour l'obtention de la carte nationale de presse donc jàpp nañ ne le 15 muy le 15 mars 2021 muy bii di ñëw. incha allahu rabbi dinañ commencé euh, recueillir li nga xamante ne moom mooy dépôt de candidature yi euh, léegi nag ci dépôt boobu également ci ñaari fànn la ko professionnels yi mën defee benn moom mooy site bi nga xamante ne moom lañ mettre en place euh, ñu déposer foofu directement spécification technique yëpp yemb na mais également mun ngeen déposé de manière physique bu ngeen ko constituer seen dossier ba pare ngeen ñëw indi ko fi nga xamante mooy secrétariat administratif et technique bi nga xamante mu ngi ci ministère de la communication pièces yi nga xamante ne war nañoo fournir war nañ ko fournir également loi bi moom moo ko wax mooy am na benn document bu nga xam war ngeen ko signer benn formulaire bu nga xamante ne da ngeen di jël engagement tenir informé commission bu fekkee ni am na benn changement bu intervenir si seen liggéey wala bu fekkee ni dem ngeen ba nga xamante ne Euh, war nañu retirer seen carte euh, nationale de presse ngeen ngeen jo ngeen delloowaat ko commission bi war ngeen ut cutis bu nga xamante ne correct moom moo koy joxe euh, président bi am na lu mu ci wax léegi war ngeen a joxe casier judiciaire bi nga xamante ne ñu ngi koy uti ji tribunal war nañoo déposer li nga xamante moom mooy extrait de naissance wala photocopie carte nationale d'identité ñi nga xamante ne am nañ diplôme également dañuy joxe photocopie légalisé diplôme bi ñu am ñi nga xamante ne amuñu amuñu diplôme dañuy joxe yeneen pièces yu nga xamante ne ñoom ñooy prouver expérience bi nga xamante ne am nañ ko euh, war nañ joxe également ñetti photo ci dossier bi la bokk ak la somme de dix mille francs mooy li nga xamante moom mooy conseil dossier bi nga xamante ne moom la ñuy déposé fii ci commission de la carte nationale de presse pour mën am document boobu nga xamante ne moom moo leen di may sañ-sañu liggéey liggéey journalisme journaliste wala technicien de la communication. code de la presse dafa am lu nga xamante ne moom la moom la tëral te ñun ci loolu la ñu tënku ci loolu lañuy ñuy doxee euh, moo di dafa teg condition yu nga xamante ne nit ki moom la war a remplier pour mën a am carte nationale de presse euh, te ci loolu mooy pièces yi nga xamante ne nit ki war na ko fournir pour que mën a am li nga xamante moom mooy carte nationale de presse. mais dafa prévoir également ay sanctions ci ñi nga xamante ne respecté wuñu charte yooyu maanaam def nañ ay yenn fraude su fekkee ni dañoo déposé benn diplôme bu nga xamante ne diplôme bu faux la wala ñu joxe ay information yu xamante ne ay yu fausse la wala ñu def njuuj njaaj ci li nga xamante ne moom la ñu war a déposé pour am li nga xamante moom mooy carte nationale de presse am na ay sanctions yu nga xamante ne code de la presse bi da ko prévoir sanction yooyu nag amande mu ngi ci kaso sax mën na cee dem parce que am na ay pen yu nga xamante ne ñu ngi koy prévoir mu nga xamante ne mi ngi commencé ci 6 mois ba mën a dem ba ñaari atu pour ñi nga xamante ne dañoo frauder pour am li nga xamante ne moom mooy carte nationale de presse ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo dimbale ñi nga xamante ne ñoom ñoo frauder exemple bi may joxe par exemple kenn dem ci benn école de formation mosu fa jàngee par exemple ñu nekk ci école de formation bu jox leen diplôme bu nga xamante ne yow amuloo ko kooku noonu bu ñu jàppee journaliste bi journaliste bi non seulement am na ay euh, sanctions yu nga xamante ne day dal day dal ci kaw mais ki nga xamante ne moom moo ko aidé également à ce que mu am document yooyu également sanction day dal ci kaw loolu nag code bi moom moo ko tëral te ñun également bés bu ñu ci yeggee bon li ñu war la ñuy def mooy jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo yellool carte boobu parce que dañu bëgg mu nekk lu nga xamante ne lu am solo lu ñu participer ci assainissement de la presse commission bi liggéeyam dina ko def nu mu waree loolu la ñu loi bi tëral mais lépp la nga xamante ne bi loolu la tëral pour ñu def ko loolu lañuy def dafa la ñuy yem waaw autrement wax dëgg yàlla képp ko nga xamante ne yelloowu ko incha allahu rabi duñ ko jox carte nationale de presse boobu. dépôt bi dépôt en dépôt en ligne bi je pense que je pense je pense que euh, le prestataire bi mu koy bi muy bi muy bi muy projeté bi muy projeté léegi am na benn benn partie bu nga xamante ne euh, réactualiser nañ ko muy partie bu nga xamante ne. boo demee ba nga xamante ne def nga pièce bi ba validé ba pare da lay ubbul beneen fenêtre bu nga xamante ne pour que nga pour que pour que pour que nga nga nga nga joxe li nga xamante moom mooy dima par exemple mun nga envoyé par Orange Money boo boo envoyé Orange Money ba pare am na benn code bu ñu lay jox code boobu moom ngay ñëw renseigner foofu pour que mu mën a jël effectivement li nga xamante ne moom mooy sa sa sa dépôt su fekkee ne physiquement la ça pose pas de problème mais en ligne également am ngeen possibilité déposer foofu et puis fay par Orange Money ba pare jël li nga xamante moom mooy code bi ngeen renseigné ko foofu bu ko defee ñun ñu mën a jot nu mu benn notification pour wane ni yow sa dossier complet na pour mën a délivrer li nga xamante mooy carte nationale bi beneen bi mooy bu fekkee ne da nga jël 10 000 francs nga joxe ko pour le traitement du dossier la que ñu jox la que ñu ñàkk la jox c'est 10 000 francs qui ne sont